asalaamaaleykum mbokk yi ñu suivre sur la TMS TV ñu ngi leen di ziar bu baax di leen bëggee mu mel ne nag actuellement ñu ngi fii nga xamante ne tubaarkàlla mooy jumaay xaadimu rasuul waaye mu mel ne tamit ñi ngi fii taxaw tamit ci fi nga xamante ne mooy jumaa ji waaye fi nga xamante ne fi la murid yëpp di daje waaye fi nga xam ne fi la ñuy sante ki nga xam ne mooy Serigne Touba waaye nag di sant euh, Cheikh Moussa Ka mi ñu leeralal jëmmi Serigne tubaa ji dëgg-dëgg ci jasaawul sakkoor ndax dégg ngeen ko mu naan xarajtu yowmal sabti saamin azar li xidmatil muxtaari fi sëri safar mu mel ne mi ngi fi gënoon ci jamono ya euh, euh, ama jëy sësin waaye mi ngi ñibbisi si ama ka mu tombeek li nga xamante ne mooy màggal gii tey ñuy màggal di tukkib sëriñ bi nga xamante ne tubaarkàlla tubaab yi téye nañ ko sept ans sept mois ngeen dégg ko li mu wax fii ci ndakaaru wa jëtu fii ndakaaru sikaran bi xat ko tibal makaaru mu mel ne que ne macha allah defe naa ne tey murid yëpp tubaarkàlla ñëw nañ fi waaye defe naa ne adduna yëpp daje nañ fi defe naa ne partout dans le monde aussi daje nañ fii nga xamante ne mooy Touba nga gis murid yaa ngi noonu tubaarkàlla di def li nga xam ne mooy seenub ziar ñii ngi commencé kër mag moom tubaarkàlla ñii sëriñ Fàllu gi tubaar waaye boo boo defee nii ci ginnaaw dem ci kër sëriñ Saaliw gi sëriñ Abdou Xaadir tubaar kàll waaye nag kër sëriñ du Laat tubaar kàll mu mel ne jumaa ji fi mu toll nii nag fees na del ndax murit yëpp a ngi fi tubaarkàlla di def li nga xam ne mooy ziar mu mel ne yéen a ngi ñuy suivre sur la TMS TV aussi ñu leen di indi li nga xamante ne mooy màggalu Touba 2023 tubaarkàlla muy lu am solo waaye tubaar tubaarkàlla gis ngeen ne tey xéewal gu bari wàcc na ndax taw bu baree baree bari tubaar tubaarkàlla dafa taw fii nga xamante ne mooy Touba donc ngeen topp ñu rek euh, sur la TMS TV ma jël quelques personnes ñu wax ñu tubaarkàlla ni ñu màggal see ak ni nga xamante ne tubaarkàlla noonu lañ waajalee màggal gi feebar bi ba tey jii di bisu màggal gi tubaar kàll ñoom ñëpp ñu ñëw fi di ñaan yàlla seen aajo faju waaye di ñaanal sénégalais waaye di ñaanal àdduna waaye nag di nuyu sama waa ji alaaj Thierno Moule Sow king of the king king of the king le roi médecine traditionnelle du monde tubaar kàll moom mi nga xam ne moo déployé oto yi tubaar kàll déployé carburant tubaar kàll waaye déployé tamit li nga xamante ne tubaar kàll mooy eh, journaliste yi ah. na de waaye defe naa ne xuus ngeen ci biir taw bi ñëw siyaar si muy sëñ Bamba. sëñ Bamba waaw. waaw noo gisee màggal gi. waaw na ñu ngi sant yàlla bu baax. di sant borom màggal gi. di sant ki nga xamante ni moo feeñal sëñ bi di Cheikh Ibra Fall. Euh, yal na yàlla saxal ko ñu fekke ko ay ati ati at si barke Cheikh Ibra si barke sëñ Touba. maa ngi maa ngi sëñ Touba. kenn la. a parce que parce que maintenant sëñ Tuubaa nekk na. jërëjëf màggal sëñ Tuubaa lépp lu am. jërëjëf sëñ Tuubaa ma tey daal. ñu ngi lay jaajëfal baax sëriñ bi naka la yow noo gisee màggal gi sëñ jaxas bi rafet na. non màggal gi neex na lool sëñ. ala yow Baay Faal nga. ne sëñ de ko waral. ndeysaan waaw moo ko ah. waral de. mu ngeen waajee ba yegg si fii. nii non yaa ñaan appuyage bi métti na lool mais danoo jéngu lekk. barke sëriñ Tuubaa yéen waa fan ngeen. ñun waa Dakar fële fee leen dëkk ci xombal leen jógee. ah xombal ngeen jógee. waaw ana Baye Ibra Ngom ñaa nga fay ñëpp ala Cheikh Ngom ñëpp la sa mam la sama maa ngi ni sa mam la billahi Cheikh sama la waa nuyu leen waa àdduna ngeen siyaare leen ci màggal gi waaw nuyu baax xam ne Sëriñ Tuubaa fowul fowul a jaamu la wax nee na ngeen ñëw jàpp ko jaamu yàlla kon jaamu yàlla te bañ ko wax dëgg dëgg dëgg ci màggal gi màggal gi ah, ah gi daal neex na daal loolu daal mën naa leen ko wax moom ah. waaw na ngeen def ak wàccaay weeg gan yi yi de gan yi de moom kii nañ leen bu baax ah. waaw teral nii lu des nag dugg ci xabru yi siyaar daal waaw ñun siyaar nañ ba pare ah. waaw instant yi moom dañuy bëgg a dellu kër ga daal ah dellu dellu ngeen bëgg waaw mais safar geeg waaju màggal gi naka la waaw ngeen ko ah neex na trop waa coono la tamit ah. lu leer kay ndeysaan noonu daal la demee <laughs> sa gars yi nag moom nga àndal ni waaw gars yi laa àndal waaw Baye Fall yi lan ngeen di wax waa TMS TV TMS TV ah, ca kaw ca kanam rek ca kaw rek kay merci beaucoup ñu ngi kontaan ci yéen. waaw lu leer jërë ngeen jëf. waaw <laughs> ñu ne. Touba ca kanam gas nañ ay fo ay tiwo. ndox tu ndox bu wàccati Touba day jaar ci taux yi dem te man alar ko bu ma ñëwee Touba fépp ay dex waaw loolu moom dëgg la gars yi tàmbali nañu ko mais daa yëggagul. daa ñoo ngi ñaan yàlla nag balaa déwén. Uh-huh. mu yegg bu ñëwee mu taw ndox mi daal di daal di évacuer dugg dugg ci assainissement mais gan yi sonn nañ trop. foog ngeen wax ak nag kuréelu. ñi nga xamante ne ñoo jiite Touba ca kanam. waaw que waa Ndakaaru àdduna bi yëpp. ñu ngi uh-huh. sànni seen i 1000 francs pour bëgg bu ñu ñëwee Touba fekk fépp nepp nekk ay tali ñuy jaar ci ay tali yu baax foog ngeen tamit ngeen ñaaxaat leen parce que tamit taalibe yi ci askan yi lañ bokk. waaw bilaay a wax. loolu tamit xam naa ci dara ndax man sama moto tey damaa xuus a damaa xuus bi may ñëw Touba damaa xuus a xuus a xuus. Uh-huh. waaye ñu ñaan nag waa Touba ca kanam ak état. waaw waaw wax ak ki gars yi bañ a waxal ñu wax ak moom ne ko na nañ ñaan nañ dimbali dëkk Serigne Touba bi gars yi defar ñu ko nag assainissement bi dëgg la waaw gars laaj ñu leen assainissement rek la ñuy laaj dëgg la bu tawee ndox yi évacuer mën a dem dëgg la waaw dëgg neexul loolu rek la gars yi ñu ngi lay jaajëfal bu baax leen wax ca kaw ca kanam nag waaw TNS TV ca kaw ca kanam waaw ngeen dugg ci site bi nag ngeen abonné waaw gars yi topp daleen abonné daleen ko zem daleen commentaire bu alaaj Thierno Moulay Sow king of king borom jinne yi <laughs> maa ngi sant Diaw may ah yow da nga baax di Diaw fan. kuy sa baay yow. Galas Diaw. Galas Diaw dëkk fan. Zak Mbaaw la dëkk. ah Diaw faraag ma Diaw xoor waxal yow sama doomu baay nga waxal ba mu neex la sëñ Fall. mooy ñuy wax ne neex na trop. màggal waaw gi neex na trop. waaw ngi ñaan suñu Muntaxa Mbakke yàlla na fi yàgg te wér. amiin waay yàlla na ko fekkee ay déwén déwén déwén. ndeysaan kenn màgg ci barke yow ko àndal màggal sa papa wala. ah sa mag nga àndal màggal mais yàggoon nga waajal màggal gi daal ak safar beeg yooyu nan ngeen ko dundee Dakar. ah neexoon na daw. Ah. ngeen doon defar ay berne ay café yooyu. di jox gaay yi. waaw ñu naan. Ah. waaw waaw léegi nag instant bi da ngay toog Touba wala da ngay ñibbiwaat. damay ah, ñibbi feneen Mbàkke. ndeysaan oh, kon ñu ngi lay jaajëfal Galas jaw waaw après damay jël sa numéro. bu ko defee ñu déggante dégg nga. waaw Zac Mbao. ak fi ñu dëkk sorantewul ñun ñoo ngi noor foire rek jili mbay dinaa la seet si ba foofu wala ma jàpp la ci loxo indi la ba ci Thierno Moule neex na waaw jërëjëf sëñ Fallou looy wax waa TMS TV wala côté café bi ñun ñu ngi ci kote café gi ak servi bi di jox Baye Fall yi café mën ngaa tàngal kafe mën naa kay mbaa am nga am nga Baye Fall waaw sëñ bi ñaanal ah kon góorgóorlul soxna si ziar naa la nice naka màggal màggal gaa ngi nii rek. mais yow daa mel gi ay ree nga indi de. ana looy wax askan wi. askan bi ci gan ci màggal bi. ah gi neex na daal. ah koy dund bu baax. Mhm. macha allah lan mooy solo si màggal gi. ah ñëw ziar. Ah. ziar ziar tamit am na solo de. ndeysaan mm. di togg di berne di jox gaay daal. loolooy màggal. waaw te yéen looloo indi. waaw lan nga fi ñaan. ñaan naa fi daal. Ah, amul benn boo ñu ci mën a wax bi nga ciblé. ah ba fi sama waajur jigéen ba si kanam. Ah. Ah, mu mel ne màggal gi macha allah. gis mu mel ne màggal gi macha allah. waaw waaw sant yàlla bu baax. demee na noo xamante euh, ne tubaarkàlla àdduna yëpp ngi fi. waaw comme ni ko sëñ Touba di waxee rek. ndeysaan. maanaam euh, uh-huh. bis bi daf ko jagleel sant suñu borom dëgg te yàlla moo ne ñu sant ko mu dolli ñu la in shakartum la azidannakum ndeysaan ndegam sant googu la ñu woo ñu ànd ceeg moom di sant ndeysaan ba tax na yàlla def ci xéewal uh-huh. ba ndox mi wàcc fi ndox moomu di ndoxum xéewal kon dañuy sant Cheikhul Khadim bu baax ndax daf ñu may loo xam ne mm-hmm. ñun waa Sénégal yaakaar naa ne xam nañ ko mm-hmm. moo tax ñuy màggal bés bu toll nii waaw mu mel ne defe naa ne nii luy bernde rek def ngeen ndax Touba gépp foo tourné ay soos la man looloo ma jaaxal. waaw sëñ Touba lii la xamoon. Hmm. Ah, kuy taalibeem tamit lii nga xam. joxe lekk moom dafa bokk ci li nga xam ne lislaam sax daf ko bëgg. dëgg la Cheikhul Khadim ñëw gën ko wane. moo tax mu def bis bi ne bis luñ ci am nañ ko ci def. lu ci taalibe mën a am rek na ko ci def. Cheikhul Khadim dina ko fay ba mu gisaat ko. waaw kay. macha allah kon ñu ngi lay jaajëfal lan mooy sa mot de la fin. waaw mot de la fin bi mooy lenn rek. maa ngi sant sëñ Touba bu baax. di wax jaaraama Cheikh Ibra. parce que Cheikh Ibra tamit euh, lamp baabul lamp Fall baabul Mouridine. moom mi tax ñu xam euh, sëñ Touba. ñu ngi koy sant bu baax moom tamit. di ñaanal sëñ Mountakha yàlla na fi yàgg te wér. sëñ Mountakha yàlla na fi yàgg te wér jërëjëf. Uh-huh. jërë ngeen jëf. yéen a koy gis en direct ci buntu jumaa ji. ñuy sant bu baax a baax. ah ki nga xam ne mooy El Hadj Thierno Moule Sow king of the king king all king. le roi médecine traditionnelle du monde ñu koy sant bu baax a baax a baax di ko ñaanal mu yàgg fi lool waaye lii ngeen di gis tamit moom mooy ki ko yombal ndax moom mooy ki nga xamante ne moo samp tele bi waaye samp li nga xam ne mooy ay journaliste macha allah ñu nekk ci liggéey bi def liggéey bu am solo tubaarkàlla ngeen gis ne nag macha allah fii mu ne nii maa ngi nii en direct ci jumaa ji ngeen ñuy suivre sur la TMS TV mu mel ne tamit liggéey bu am solo la allah ngeen gis nii jumaa ji waaye ngeen gis li nga xamante ne moom lañ fi def comme ay interview waaye ngeen gis ne tubaarkàlla àdduna bi yëpp a fi daje partout dans le monde ñu ngi daje fii euh, sur la TMS TV fii ci màggal gi tubaar tubaarkàlla ngeen gis jumaa ji noonu macha allah mu nekk loo xam ne lu am solo la defe naa ne xaraj ci yowmal sabti saamin azar defe naa ne mooy li nga xamante ne mooy màggal gi kalla mooy ñibbi si sëriñ bi tubaarkàlla ngeen gis àdduna yëpp ñëw di ko màggal macha allah mu mel ne ndeysaan tey jii defe naa ne pitax yi ñëw nañ waaye giléem yi ñëw nañ waaye ginaar yi ñëw nañ waaye nag yi daanu nañ waaye giléem yi daanu nañ tubaar tubaarkàlla defe naa ne ren nag tey foo laal rek soos la tubaar tubaarkàlla defe naa ne pot pombiteer amu fi place mburu amu fi place ndax fépp ay soos la ngir sant sëriñ bi ndax sëriñ bi loolu la waxoon ne na ngeen ma sant le yàlla ci sama bis bi ndax defe naa ne wuute naa keroog bi nga xamante ne tubaab bi mi ngi dugg si daaru marnaan tubaarkàlla di lawi sàkket yi di daane tubaar tubaarkàlla dugg fi nga xam ne mooy Mbàkke jaar daaru salaam daat fay fekk mag ñi na leen ana borom Touba sëriñ bi na tëll jàkkaarloog mbaaxaan mu ànd tubaab yi tubaar kàll sëriñ bi na leen ku ci mokkal xasida ak euh, sindii di mel na mag jog taxaw muy jàng ba ci wa damiran ku la daa im tuddiru bi naa xablal wusooli la naa yàllaahu yàllaahu sëriñ tubaa ne ko tëdd leen nelaw te xamoon ne ku mu fekkoon nga taxaw bul toog ku mu fekkoon nga tëdd bul jog te xam ne xat du tàkk sagar du xeeñ tubaar kàll dinaa dem ci géej gi ñibbisi tubaar kàll jox leen ngeen añ ngeen dégg sëriñ Moussa doon ko wax foofu ci jasaawul sàkkoor naan la waral euh, màggal ga moo waral tukkeem bi nga dégg mu ne bisub tukkoom boobee ko koo xam ne màggal nga ko aj nga umra nga am nga yoon ba wa so waxu jatan bi soxoy irada xalaama xaalibil xadaa la daam waxoon ca matlabul fawzayni loolu moo waral màggal gii tey ah, ngeen xam ne kenn amul fayu Cheikh Abdou Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul ci tënk rek tubaarkàlla ñu leen di jaajëfal ngeen xam ne wuute naag fi muy waxee euh, wajjahtu